bismillah bismillah rahmaani rahim mbokki julli yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñoo ngi nuyu ñëpp di leen balu àq di leen ndokkeel di leen masaw di am mbégte bu baax ci teewaat fii ak yéen defe naa ne muy fukkeelu yoon ak benn yàlla na ko yàlla def mu lu yàgg te mu ànd ko jàmm te lépp te liggéeyal sëñ Tuubaa mooy liggéeyal yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi ñu ngi leen di nuyu nag di leen jot li nuyu seen Seex Ahmadu Lay ak mbooleem kilifa diine yi ñu may waxee loolu rek ndax euh, boo ko tuddee rek danga cee war a dugal mbooleem kilifa diine ndax ñoo seq njaboot gi tàmbale nuyoo bi ci sëñ Ibrahima mi nga xam ne moo nekk ci kanam mbooloo mi ak mbooleem ñi mu seqal liggéey bi di mag ñi ak ndaw ñi di nuyu tamit soxna yi ak ñi nga xam ne ñëpp bokk nañ ci fédération bi ci collectif bi te bokk ci nekk ci réew mi di nuyu suñ bu baax it maam Bousso ci taxawaayam bu rafet ak liggéey bu jafe bii nga xam ne eh, wane nañ ci loo xam ne ku ne xam na ne ndam la ndax yomb danañ ci si di nuyu bu baax sëñ Abdoulaye Ndiaye modérateur bi nga xam ne moom itam ci pas-pasam ndax loolu tamit yombul taxaw waxtu wu nekk lu ne nga jottali ko ci dal ak ci defeenu kooku tamit ñu ngi lay nuyu bu baax di leen ndokkeel di nuyu nag xale yi te am te karam Modou Kara jiitu ci ndax loolu dalal na xel rawatina nag bi ñu gisee waa juróom yi démb laa ko naan bul retraité te xam naa ne loolu moo ko indi fii ndax jàppul woon na ne dana taxawate ci yeneen nii waaye mbir dafay toll foo xam ne euh, yoon sëñ tubaa am na loo xam ne bu la ko leen rawatina nga jaar ko ci Cerno mënatuloo am droit ci retraite kooku moom dangay sonal sa bopp rek waaye jaru ko lii yay mettee yi ngay kii yépp mooy ngay jéem a retraite rek waaye boo toogee def lii dara dangay xëyaat mel ne xale yi sax soobu yàlla danga yàlla na ko yàlla defal te lu wér fekke nañ lu bari ci Amérique googu ngay wax sa teewaay ngay liggéey di def di di wax lu rafet di ko def bokk ci liggéey ba euh, di nuyu bu baax ñi nga xam ne ñëpp jël nañ fi ay kàddu naa Cheikh Mbacke moom itam di koo xam ne bu ñu nekkee fële mooy ànd ak ñun di ko def defeen wu rafet ak pas-pas euh, yal na na yàlla sàmm yooyu itam ndax mbir mi yombul ndax mbirum yàlla kenn du ko lijjanti ngay am pas-pas foo waxee rek ñu xam ne lii lu dëgg la ci yow euh, di gërëm soxna yi di gërëm Mourtala tamit sëñ Mourtala professeur Mbow Mbow Moussa Mourtala moom itam ci wax yi ak ñi ngi xam ne yëpp jël nañ fa kàddu mooy Lamine Sow ñëw ak sëñ Mourtada Amar ñoom ci wax ji nga xam ne ñëpp wax nañ fi di ndokkeel xale yi nag dellu si ci sëñ Bousso ndaxte lii ñu fi gis ak ni ngeen waxee programme mu njàng mi damay wax ne jàngale Tuuba jàngale fii boo doon jàng nga defi jàngale benn benn benn bés benn semaine bu ne ngay jël benn bés te ay heure ni nga ko waxee léeg-léeg ñu tànte sax heure yi ngeen leen fixé. nga mën cee am résultat bu mel nii am na ñoo xam ne ñu ngi ci digg Touba wala ci biir senegal nekk ci seeni biir kër te mënuñoo am comme defe naa ne am na lu ci rax lu ci rax mooy suñu boroom rek moom mooy wane boppam alxuraan boobu nga xam ne nee na woon kenn mënu ko naax naax saayal loola lii daf ko wane bu baax waaye yéen ñi koy def ci ñoom it xam ngeen am na leneen lu ci nekk ndax jàngale ci boppam xam ngeen ne yombul ngay jàngale xale boo xam ne environnement dafa am solo lool ci pédagogie ngeen di ko def foo xam ne lépp négatif la daanaka ci environnement bi ci ci pédagogie ci ak ni ngi bi ngeen di jàngale ak matières yi ngeen di jàngale nan ngeen mën a def ba man cee xam lu toll nii ci ay heure kooku beneen mbir la waaye nag dara lalu ko lu dul euh, pas-pas ak gëm ak xam ak li nga bëgg ak li fi nga xam li ngay def moo tax lu yàlla nangu yomb naa xam kon jàpp leen na lu yàlla nangu la te lu yàlla nangu kat moom la ñëpp yi daw kon xale yii nag euh, pépinière la ndaxte ñii ñu fi dégg ñu di ci wax nga xam ne ku ne xam na ne seen làmmiñ bu yàggoon tuuti rek dina jafe lool ngir dégtal leen su wax seen waxu bopp sax waxuma laa nag lu jëm ci diine ngeen defe ko nii loolu ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax di ñaanal xale yi yàlla sàmm leen ñu dem ba lii nga xam ne bismillah bismillah jërëjëf waaw kay sëriñ bi hmm. waaw indi ko mu toog ci ñëwal toog jàll si fii jërëjëf ñëwal ñëwal fii ñëwal ñëwal fii ñëwal bi hmm. waaw waaye ko mu toog jërëjëf maaleykum hmm. salaam jërëjëf ibnu kaabin ibnu luay ibnu haalibin ibnu fihrin ibnu malikin ibnu nadar ibnu kinaanata ibnu xuzaimata ibnu mudarikata ibnu ilyas ibnu madar ibnu nazar ibnu mat ibnu adnan muhammadu sallallahu alayhi wa sallam abu bakri siddiq umar ibnu alxataab usmaan bun affan علي بن أبا طالب كرم الله وجهه سعد سعيد طلحة زبير أبو عبيدة عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليهم waaw loolu boo ko déggee tur yi ngay dégg nga xam ne kenn xamul lu muy niru hmm. te kenn rek a tax ñu di leen tudd mooy Muhammad sallallahu ay turi naar la rek hmm. nekkuñu woon sax jullit ci bare loolu lépp sunu borom dafay wone dafay wone rek jërëjëf ndax ku tedd lu ko jege rek tedd nga kon ñoom itam dinañ leen wormaal lu bari ci ci jikko ci lislaam moo tax lislaam jikko la woon jikko la laloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam bari nañu am ay ay ay ay ay ay wàccuwaay ci moom damay wax ne léeg-léeg ñu am gis daayira wala dara ñu tudd ko Xadija nga xam ne manis naa wax ne kon ba muy ba muy la mu jikkoo tur wi sax ba mu koy tudd nekkul jullit moo tax lislaam dafay wax ne tur ci boppam du ci bëgg na tur bu rafet sax waaye tur amul solo ci diine ndax ñu bari ci tur yooyu turi naar rek turi aadal rek suñu tur yi rek la woon bi ñu duggee ci lislaam ba am ay qualité la lislaam soog a ñun ñu fonk leen ndax yonte bi sallallahu alayhi wasallam tax ñu di leen kon tur yooyu lu ñuy naqaree li ñuy naqaree tudd tudd nga dem di ko mokkal ba di ko tari te dara waralu ko lu dul su fi askanu yonte bi sallallahu alayhi wasallam jërëjëf yooyu itam loolu lu am solo la xale yi kon ñu ngi leen ci ndokkeel ndax ñoom tey ñoo war a def lii nga xam ne tur wax ngeen ko fi sànq liggéey bu rëy la bu jafe te ñoo ko war a sàmm ndax da ngeen di dégg ma di ko faral di wax ne lislaam euh, mësu mësu mësu fee jóg boo déggee alxuraan sax da xam ne mooy naka jekk la mboolem yonent bu mas a ñëw wala aslama loo xam ne fi samaawaati wa tawan wa këran ñépp loolu lañu tuddoon euh, wante li nga xam ne moo ci am solo mooy la tax nit mën caa def dara wala mu nit mën caa man caa jariñu mooy ña ñëw di ay yonent leeral ne li tax nit ki man koo doon wala nit ki man ko mu dëggu ci moom lii la ay doon woon leen fañ koy jaar wan leen yàlla woon leen yànd bu la nañ koy gëmee nañ koy demee kon xale yi nekk fii kon lislaam amoon na fi ci ab ci ci Europe bu baax loolu yëpp xam ngeen histoire l'islam ci ni fi yàggee ak ni mu fi am ci ay monoore waaye dara mujj xëy xëy lu bari naax saay loo xam ne ay ay ay barab yu am solo la woon ñu wëlbati ko def ko leneen li ko waraloon mooy loola rek mooy ña nekkoon dañu fa nekk waaye gëm nga amul woon ndax amul woon amuñu woon nekkul woon ci seen biir. kon xale yi ak li ngeen bi def li muy rëy rëy rëy rëy ngeen gis lee ñu def tey fee du lu tuuti muy génn wax laa ilaha illallah ci wax naa ko fa junj naa ko fa bu baax ndax dafa am solo lool ci ñu di ko wax ñu di ko leeral foofu xam nga sañ am sañ sàmm wax xam nga ci dara Amérique ñaar kilo at ak juróom-ñaar ñu am fa Seex Amadou Bamba am fa bés Bamba dey sëñ Mourtala ñu jox ko ko muy loo xam ne cérémonie ba dafa nekk lu rëy la loolu la muy firndeel kon mooy lislaam li may wax ne kon amul ab frontière ki am frontière mooy ki ko yor ki ko kene moom laa ba am jullit laa kooku bu ko yoree yor wa ko lislaam wa lislaam wonee ko na lislaam doxee fu nekk mën na faa taxaw même bu fekkee te ne ñam koy woon gëmuñu ko sax danañ ko war warmaal teg ko jox ko la mu yellool waaye nag su demee ba foo xam ne dañ ko fay lan nga faa wane sa bopp kese bu boobaa mën nañ ko faa sikk te loolu mooy yaa mooy mooy yaa mooy yàq lu bare kon xale yi leen leen xeeb nañ leen dimbale soxna yii nga xam ne yéen seen waajur yu jigéen ñu ngi leen ci sant bu baax ndax yombul xale bu mel ni am na loo xam ne bu fekkante ne bu ñëwee ca kër ga ko ca loolu même boo jàngul sax waaye nga fexe ba sawarloo ko ca loolu itam ba tey ci liggéey bi la bokk kon liggéey bi damay wax na yéen dégg naa kii doon na ma euh, karaat doon na ma wax démb ne da ngeen doon def ay conférence ci wàllu immigration immigration xam ngeen ne du tuuti yonent bi sa yàlla moo ko digle alam takon abdullahi waasiatan fa tuhaajiruu fiihaa euh, ñi nga xam ne yàlla dafa wax sax ne ñi nga xam ne al mustad'afiin maanaam nit ki bu fekkente ne dafa dafa dafa néew doole yoon mayatu ko mu toog fa mu ko néewee doole dafa war a jéem a jóg wuti ndax mu am doole waaye toog kooku yambara koy def kon lii nga xam ne moom ngeen def mu muy beneen beneen beneen beneen beneen beneen niveau waaye bi ci gën a yéeme mooy mu dëppoo ak li nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle woon mooy hijratul boobu muy wax ilallaahi war a fa man kaan innamal amalu bi niyyati wa innamaa li kulli imri'in maa nawaa fa man kaana hijratuhu ilallaahi wa rasuulihi fa hijratuhu ilallaahi wa rasuulihi wa man kaana hijratuhu li dunyaan yusiibuhaa aw imra'atin yankihuhaa fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayhaa loolu liñ koy firee mooy ki nga xam ne dafa jóg immigré ji nga xam ne lu baax a ko te ko jóg dafa war a dem dafa dafa war a dem ngir wuti lu mu jariñoo wuti lu mu amee doole wuti lu mu dunde kooka kooku mooy ki dem ngir yàlla ak yonent bi bu demee ngir yàlla ak yonent bi la koy firndeel mooy ndax dem nga tàggale na ko ak yàlla ak yonent bi wala tàggalewu ko ko kon loolu dafay firnde ja dafay feeñ kon wane ne seenu dem tàggalewu leen ak yàlla ak yonent bi ndax soo leen ko tàggalewoon woon su ngeen ñëw fii topp fii fu ne xam ne neexul neexul ci nit ci yàlla neexul ci ku bëgg jàmm yàlla la ndax saa boo génnee rek gis lu la tex lu la lu la lu la ko war a fànqal kon su ngeen bàyyee lépp dem ñëw ba fii te lu baax lu jóg ngeen jóg ànd ca kooku dafa dëppoo ak alxuraan wante dafa dëppoo ak sunna kon ñaar yëpp dafa nekk ci yéen moom beneen bi nga xam ne nag ka ka wuuteeg ñaar yëpp la mooy ki nga xam ne mbirum bopp xaalis rek ko tax a jóg te noonu ko doon junje léegi kooku bu ñëwee bu gisee lu baax bu gisee fu ñuy yëngoo lu baax sax day defe ne su fa toogee benn minute sax dafay perdre temps day jàpp ne su jëlee ñaari dërëmam sax su ko joxee boo ëllëgee dootu ko am ndax kooku mooy ki nga xam ne calcul lay doxee te calcul du diine damay wax ne diine du calcul mais confi gëm-gëm la gëm-gëm nit ki buy buy buy bu dee calcul rek fokk mu egg ci résultat te ki gëm kooku ki nga xam ne yàlla la jëm kooku xaarul résultat dafay dem ci yàlla directement lu ko ca fekk rek baax na loolu moo tax diggante bi day jafe. kii calcul nag saa bu amul dara rek saa bu amul résultat rek mën naa wàññeeku waaye ki nga xam ne nag lu baax la bëgg te yàlla la bëgg mën ngaa toog fii léegi nit laaj la xaalis te fekk yore ko wala nga yor tuuti nga jël ko ko jox ko ci sa poche te fekk xamoo foo koy jële ji mais kii calcul moom dana loolu su ma ko joxee du su ma jógee du ma am lu mu yóbbu kon ñaar yooyu bokkul te moo ne kenn ku ci nekk nit la kon ki nga xam ne yàllaa ko te mën na koo jox sax di ko def te fekk xamu ko kon li ngeen di def nii dafa dëppoo ak ndigalu yàlla waaye dafa dikkoo ak dëppoo ak sunu su Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mission la ngeen di def fii tamit ci barab bii tamit mooy ànd gi dafa nekk loo xam ne mooy diine ànd ak ànd gi mooy bokk ci sax moom mooy mooy ànd yàlla daf ne na ngeen ànd te muy ànd bi jëm ci lu leen di jëmal li ci lu leen di musal muy ànd ci yàlla taawoon boobu tamit moo dugg ci li ngeen di def mu mel ne seen seen seen seen histoire lépp lu mu ci mën a doon génnul diine muy lu jafe nag te mat a bàyyi xel ndax bari na lu nit di def loo xam ne dana koy def ba noppi dafa mel ne li tax léeg-léeg léeg yàlla moo lay moo lay orienté ci boo doon bëgg a def sax lu dul noona da dootoo dootu yomb ci yow ba tax na kon lii nga xam ne moom lañu def tey ngeen ànd ak jóg wax la la la ñëw ci barab bii nga xam ne wax nañ ko foofu sànq fanweeri at ak ñett ak ni ko moto daan doon junjee yoo xam ne sëñ Tuubaa la ko tubaab yi sonal yi mu nekk résidence surveillée damay wax ne résidence surveillée boobu fukki at yi ak juróom yi mu nekk Jurbel la moo gën a metti sax daanaka la ñu ko woon ci ay gaboo ak yooyu ndax booba mi ngi ci kër mooy kër bu mag dañ ko fa tëjoon nanguwuñ mu génn waaye la ca nekk mooy fitna jafa ne ca ña ak ña ko ak lépp lu koy defloo lépp lu mu yëngu balaa nooy lu muy def rek ay nit a nga fa yoo xam ne ñu ngi ci biir kër ga sonal ko fa lool te niru ñoo xam ne dañoo nekk ak moom loolu moo gën a nekk ci nit ku yiw nit nit nit waaye nag moom mos nëbbatuwul woonu moo tax ma naan tuwaab yi fi ñu amee problème rek mooy fi ñu ko bàyyee muy bind kaw muy bind ak di dimbale ak di wax ndax wax dafa bokk ci nit ki yonent yi amul benn yonent boo xam ne waxuma sax nga mën a wax rek alxuraan bi muy ñëw ci ci yonent bi sallallahu alayhi fekkoon na fi ay yonent jiitu ko mais lu tax mu ñëw nekk arab nekk ci ñëw ci arab boo xam ne arabu Quraysh sax la du arab yëpp parce que arab yi amoon nañu ay ay ay ay ay seen kii bopp am nañu ay ay dialecte yoo xam ne kii day waxee ne kii wax gis ngeen alxuraan sax léeg-léeg ñu naan jàngeen warsh wala ansib wala nangam nangam ndax kenn ku nekk na nga ko mokkale woon bi ko yonent bi sallallahu alayhi waxee wax ko nga jël ko ba nga demee danga nga koo nekk da nga danga ko nga koo mujj yenn yi boo ko mënta sa tamit am na ci baat yoo xam ne yow na nga ko xamee nga koy waxee moo tax Ousmane ñu mujj dajale ko jël jël làkk ko Xuraysh bi nga xam mooy arab bi gënoon a rafet ñu jële ko ci génne ci alxuraan te alxu loolu moo tax alxuraan nekk loo xam ne lu yéeme la ndax mën na tey laay wax ne amatul benn nit boo xam ne ci àdduna fi mu ne da nga nàmp génn arab classique bi nga xam ne moom la alxuraan nàmp ko génn di ko làkk amatul ci àdduna te bu amoon da gis léegi nit ku xalaat ba loo xam ne bootu mu fa fexe lu ne def nañ ko ngir bëgg a génne ay alxuraan mais waxin bi ak niñ ko waxee kenn mënatu ko am amul benn nit boo xam ne danga nga ak mooy moo xam Makka moo xam Medina ak fu mu mën a doon mënatuloo judd di wax arab boo xam ne muy arabu alxuraan muy classique bi alxuraan wàcce loolu lépp ci kéemaane sunu borom la alxuraan it bu muy wàcc ku ne xam na ne téere yi wàccoon mooy li ko yi ko jaxase mooy l'évangile lectoral yi ak yooyu. kenn ku nekk ba mu wàccee ab ibro yi dañoo jël fee perse yi jël fee kenn ku nekk jël ko ci saw làkk ba nga ko jëlee ci saw làkk da ngay seet baat yàlla ca neex nga nga soppi ko bu la neexee yaa nga xam ne déggoo ko nga seet na nga ko traduire loolu moo tax mu mot ay téeméeri téeméer loolu nag mënul woon nekk ci alxuraan nga xam ne kon alxuraan su ñëwul woon rek kon dana am jafe-jafe loolu liñ ci bëgg a wax lépp mooy diine suñu borom daf ko seggal doomu aadama kon mënul am jafe jafe-jafe ci boppam nag nit mooy loo xam ne saa bu nekk moo koy wutal boppam ndax loolu moo nu dal ndax damay wax ne bu ma déggee ñu naan crise ma ne crise kay moom nit nit mënu ko ñàkk a def aadama moo ko jëkk def ndax nekk àjjana sa dara manqué wu nga ne nga xëy xëy ñu sànni la ci biti yoroo sax mbubb defe naa crise boobu moo ko ëpp doole ci crise kon nit mënatul toog ci àdduna moom te doo crise mais crise bi nga xam ne moo ko sooy moom la war mooy nag mooy crise ay valeur wala crise su jikko wala pas-pas kon nag nit ki lu mu mën a am ci àdduna bu fekkente ne yàlla lim nu teg mooy indil nu diine ne lii moo dee yoon wi nga xam ne su ngeen ci jaaree la mu la ngeen ñàkkoon da ngeen ko dellusiwaat loola itam di nu bëgg jaaxal kon suñu tegee ci yoon woowu résultat bi mooy nga gis ci loo xam ndax dara nit ki lu muy def lu nekk na xool résultat ba rek wax jaag dugg ba génn ba loola lépp amul solo kon mu mel ne kon seenum nekk fii résultat bi mooy yu mel nii fexe ba rafetal lislaam fexe ba li nga xam ne moom nga nekk fa nga nekk ak la nga fay def ndax damay wax ne nit ki la mu bëgg ak la mu nekk te muy dëgg ci moom ku ko gis dafa war a bëgg loola wala bu ko bëggutoon warmaal ko ci loola waaye bëgg dara te ku la gis bañ loola loolu nit mënta mënta mënoo ko wax ne loolu daf ko bëgg da ngaa mën a wax ne loolu sax daf ko am noonam la war a doon loolu mooy tax lislaam nun damay wax ne li nu sëñ yàlla defal sëñ Tuubaa ñëw di koo xam ne dafa wax naa ne moo tax démb may wax ne ñun bu ñuy wax bu sëñ Murtala doon wax lislaam dafa man dama jàpp ne li ma ko dégge man mooy sëñ Tuubaa bi mu ñëwee démb laay wax sëñ Ibra ñoom démb sëñ Tuubaa bi mu ñëwee dafa fekk tariixa yépp mu jël tijaan yi tijaan xaadiri te mu sadaliya turux yi nga xam ne yépp ñoo nekkoon ci tasawuf te am ci ndam te am ci résultat yu baax dafa dem tibbi ci ñoom ñu jox ko ku ne nekk mu tàn tibbal ko ndabam mu dajale ndab yooyu téye wuti nag man man ndax ndax sax ñoo ko wax ne ko demal ci ki dul jeexal moo moom daal lu mën a xew moom dem na wuti xam ne ki dul jeexal mooy yàlla lu taxoon muy jaar ci ñooñu te mënul dem directement lépp dafa wane ne kon moo tax may wax ne bu ñuy wax sëñ tubaab bu ñu ko xatalee tarixam ndax ndab yooyu mu jël yëpp sànniwu ko tuuru ko kon ndabam yooyu ay ndabam la bu ko amee ak ndab yam jëlee ci boromam kon nañ ko boole lépp moo tax dafa dajale lépp moo tax mu jël muridu laay tuddi ko ko muy loo xam ne ñëpp ngi ci biir mbooleem fu mu tibbi woon ndab fu ñu ko tibbaloon ñoo ñu tànqaloon ko ay ndabam mu mu ba mu fees ku ne jox ko sa ndab ne ko nag lii lañu lan lan man mu gis koo xam ne du jeexal muy sunu borom mu dem ca mu mu jox ko moo xam la mu ko jox moom moo ko xam waaye bu ñu ko xaññee ca des nag moo tax nit ku ami teggin du du dàqal nit sëñ Tuubaa waaw sëñ Tuubaa mooy ne sëñ mooy li ku dul loolu duy teggin neexu ko ndax fa mu tibb am fa su sañoon ñooñu ñu sagal leen teewu koo la am ñooñu itam xam nañ ne la am am na ko tax nit moom boo ku mel moo tax nañ koy wormaalee di ko y di ko ko comme yar di ko bàyyil mu bañ di ko bañ a wutalum noonu mooy nga xamal ne lam am am na ko waaye fam lam tibboon it tuuruwu ko tuuri jiw ko newu leen li ngeen ma jox soxlaatuma ko ndax am na lu ko kon nañ ko ko dencal mu dugg ci biiram loolu moo tax ñi fi nekkoon ne lu baax kenn ku ci nekk teg nga ko palaasam kenn ku nekk warmal nga ko nu itam nag buñ ko dindil loola buñ ko dàqal kenn buñ ko wutalum noonu moo tax bare na lu nit di xam bare na lu nit di def te fekk ñàkk xam rek la ba tax na seen nekk fii tey gis ni ni ngeen di def nga xam ne fii ngeen nekk muy dëkk yi nga xam ne dëkki nasaraan la ñu ñaw lañu ci wàllu ci ci wàllu xibaar dara ump leen ci lu bare kon lay tax ñu mën leen a wekk lay tax mooy mooy dak yéen sax du ngeen ko xam waaye am na lenn loo xam ne bu ko nit xasee am la koy tax mu am mu mën ko nag na ko téye kon résultat bii ñu ngeen am fii nga xam ne tey ba ñuy am la ba may ba ñuy am la proclamation wax naa ko ba tey ngir li ko leeral ndax léeg-léeg di wax am na yoo xam ne dafa mat a xam léegi suñu Ahmad Sàmm wax na ko bi ñaar fukkeelu at ak juróom-ñaar ñu am proclamation boo xam ne ci dëkk bu ëpp ci àdduna ni weer ko bu ëppul ci àdduna itam dëkk yu mu ëpp fii kon soo amee loo xam ne lu officiel la état joxe ko ma ne damay wax ne njàkk soo see nga xam ne moom la sëñ Mourtala jëkk a jël xaalis yónnee ko fa boobaag léegi ñaar fukki at la ak juróom keroog ba nga xamee ne 11 septembre am na bi mu metti lool njàkk soose la muy tuuti tuuti tuuti ñoom képp ñu lañ fa gis ñu julli amoon nañu am jàkk yoo xam ne ay millions yi dollars lañ ko defaree mais ñenn ñi dañoo soli jiin ñi ci des wat seeni sikip ñi ci des changer seeni tur suñu njàkk sosé kon loolu pas-pas la kon kon l'islam amul problème kon ki ko yor te di ko dugal ca leneen moo tax kon loolu dafa mel ne kon bu nu xeeb suñu bopp ci fi yëpp jamono toll. xam ngeen bu baax ne yi fi jaxasoo na. nanuy bàyyi xel lu ñu gënoon a am prudence nañ ko gën a am. nanuy seet ñu nuy jaxasool ndax la jig dañoo wax ne wolof yi dañuy wax ne la jig mbott jigul jigul jëlaat am na ñoo mbott mën ngaa dugg ci ndox kon. nanu fexe ba bu nu nanu am fu nu yem bu nu ko gis duggante ak moom bu ko gis mu taxook ñun ndaxte xëy na loolu dafa mat ci jamono yi la ndax lii ngeen gis muy lislaam ñu di ko ñu di ñu doolu lu yàgg la daanaka jazirul arabia bi gannaaw yonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu bari ñu bari histoire mooy def léeg-léeg mu rafetal mais ñu bari weddi woon nañu geeru ñu murtat googu Abubakar njëkk a def mais yaatu woon na kon ndax du lool rek la dafa am yu bari yu ne ci biir lislaam dafa am loo xam ne waroo koy di nett li ci biir ñu ci xóotul bu baax ndax léeg lekk nit mën na caa dégg loo xam ne mën na ko lool ndax occidentaux yi am na lii am na am na ku ma fi dégg léegi muy muy muy muy wax indi ay contradictoire lu bari yoo xam ne loolu ñi koy wax dëgg dëgg ñoo dañoo xam alxuraan xaddis yi tey ñi ko dajale def ko euh, gen légendaire ko ñooñu duñu ay jullit sax indi ci ay xaddis yoo xam ne kenn xamul fu mu jógee loolee nag moo tax te lii nu am sëñ Tuubaa am ko nanu ko téye ndax waxtu wu nekk baax na waaye fii la rawee ndax xeex bi dafay soog a tàmbali moo tax xale yi nañ leen jàngal ndax kat man ak sëñ Ibra Diop ñoom ñu mën nañoo gëm miracle boo nu ne nangam nangam mën nañu ko mais suñu doom yi sëtaat yi sëtaat yi bu demee ba ca kanam da leen di wax ni ko doon laaj rek pourquoi moom day am te kooku dafa war di am ndax yàlla moo ko santaane inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun li ulil albab yàlla waxee na nu nekk nit ki dafa war di xalaat bëggul nit nga tënk ko ci xam ñàkk xalaat loolu moo tax xale yi ci kanam nañu leen di wax bu baax jàngal leen diine jàngal leen sëñ Tuubaa jàngal fi nekke woon waaye buñ yemee ci loo xam ne ay ay ay ay miracle lañ ko tudd wala ay ay karamaat bu yàggee dana dem ba ñi ci pëgg peut gis ngeen ko am na ñoo xam ne foofu rek la ñuy waxee te loolu taxul yoon yëf yi jóg sëñ Touba li mu am lépp ak li mu def lépp bu fekkoonte ne feeñal ay kéemaan rek la kon du ci demante fenn ba gis ngeen ko ba muy dem ci géej gi ñuy wax sax nga xam ne daanaka anglais yi sax ñoo lañ ci xam ñu de liñ ci xam liñ ci gëstoo ko ci acteurs yi ak anglais yi lañ ko gisee. xëy na ñii xam nañ ci lu ne waaye dañ am na lu nekk fatikan am na jamono yu ñu demoon Vatican ngir loolu ba léegi ñu ngi ci loolu xëy na sax am na ñoo xam ne dañu doon wax ne pourquoi mu dem ci dara nekku ci sax nag waaye yor nañu ci sëñ bi yoo xam ne fokk xam ko bu baax te bàyyi di tâtonner rek ndax loolu dafa dul wóor bàyyi it di gaawtu di firi loo xam ne xamoo ko diine dañ koy jàng lii sëñ bi bind ci làmmiñ wu jafe la ko bind làmmiñu arab ku xam na ne mantat ñii xam xam nañu bayaan xam na nañu arab xam na nañu waxiinu wàll yu sax man nga jàngandoo moom sax mu wax baat boo xam ne yow danga ko xam mën koo firi fekk lam ci jublu ko teg la ca kaw ndax ñoom ay message lañuy rek yore kon noonu fexeem noonu ba gën a dimbale ñii di ñëw ca kanam noonu xëy na am nañu chance bi xëy na dara mënatuñ waaye nag nañ dimbale ba léegi sax am na ñuy perturbé maanaam ñoo xam ne manis na koo tudde loolu jaxase jaxase lu bokk ak lu bokkul yombal loolu mbir yi benn téere nga ne lii ci la lépp nekk benn paat nga ne nii la ko sëñ bu waxee yow jàngoo diine xamoo ci dara amoo éducation bi xamoo yaruñu la ci nga xëy xëy yombal lépp loolu dafay rusloo sax sëñ Touba parce que sëñ Touba dafa mel ne yàlla ci boppam am na loo xam ne bu ko ko mayoon sax rus nu wax rus nu doxee su ko dee defit ëllëg la waaye du nekk fii yàlla ne la defal lii mu ne la bu ko def ndax may na ma ko loolu du ko def kon nañ ko dimbale boo ëllëgee ñu nekk mu nekk sunu mu am sag mu damoonu ndax ëllëg moom yàlla rek moo fay xam waaye nam may lam ko may ëllëg lay feeñ waaye nag nun buñ ci jéem a xam dara nan toog fi mu nu tegoolu muy jaamu yàlla nekk ci lu baax àndit nekk benn fii tamit kër yooyu ngeen di ko wax barab yu am solo la ndax nañ ko liñ ko waxee rek la dañoo jàpp ne rek li fi lislaam perdaloo rek moom ngeen di dabaatal ndax sëñ Moutalla wutul woon dara loo xam ne boppam la wax naa ko ndax lii nga ci doon junju am na ci la ci mbay doon junju ba muy soog a dem dafa amoon ñu demoon ci sëñ Saaliwu ne ko sëñ Moutalla de kër yi dafa wutoon ay kër kër yi dañ ko warul commission wut commission ña fa ña ca nekkoon ñëpp mi ngeeg man xam naa lépp. Euh, dafa wut ay kër dañoo war a yut commission ju dem seeti ko muy lu gudd waaye mujj na bu ñu ñëwee taxawal ci sëñ Saliou ba mu di ci ba ba mu sonal ko dafa mujj bu ñu ko jógee mu dem maanaam nga xam ne lan mooy problème bi sëñ Mourtala këram yi sama rakk yaa ngi fii ku ci jënd kër ci kër gi sax da pour nga jariñoo ko daf lay jafe ndax daf ko bind dafa bindoon ab dénkaane ne lii la ak lii la nañ ko def kon kooku ka koy def ci kon lu muy doyee kër yi fii defe naa ne yéen kër yi jariñ la moom yéen xamal ngeen ko seen bopp kon du loo xam ne moom moo ko xalaat mais ndigalul yàlla la ak sëñ ndax wax sëñ waxoon nag li sox dawaa man fa tooxaatit akoonu bi bosa li man dox dal islaami xat daana loolu sëñ Tuubaa ko maa ngi wax keroog na keroog bu ñuy ubbi kër googu ngay wax ci Madrid keroog la ci sa laa mas a seetlu bayit woowu téléphone sëñ Saliou ne ko kër gi àgg na mu ne ma kon nañ ko ubbi nga xam ne baat boobu fotooxaat bu damay wax ne li gën a yéeme mooy baatu co conquête yooyu nga xam ne mi ngi ko utiliser ci ci bayit wi te foofu ci Espagne muy barab boo xam ne islam am na fa lu ma juróom-ñett fukk juróom-ñett téeméeri at yu manqué tuuti ñu dem ba loolu amatu fa kon su waxee loolu sëñ Touba ñaanoon loolu ci bi mu koy ñaan mooy ginnaaw ginnaaw cent 1915 ndax ni xasida yi tëddee la. am na yoo xam ne charia dafa doon jàngale am yoo xam ne dafa doon wax ay ay yëfam yoo xam ne kenn waru koo génne am ci yoo xam ne tamit li ko yàlla may la doon la doon feeñal ci bëgg ka ko war a dégg dégg ko ka ko war a jàng yem ca fam ca war a yem hmm. am ci nag loo xam ne dafa doon dafa doon dafa doon dafa doon joxe ay directeur na may waxee ne pédagogie sëñ Tuubaa yombul hmm. ndax lépp lu mu bëgg nit def ko daf koy ñaan moom bu la dee jàngal du la tegal ay régal ne la lii defal lii defal wala mu defal la tabla defal la leçon ne la jëlal cours yi nangam nangam lu ca nekk ci cours yi ci njariñ day yàlla def ko ci moom nga xam ne bu koy def day yomb lool kooku pédagogie am yombul mu mel ne kon ñun am nañu loo xam ne boo ko jaxasee boo ko dajalee lépp ngi ci biir waaye na nañ ko téye te jàpp ne nag bu nu naagoo ci ne dara du nu rëcc ndaxte Euh, lii yàq bari na lii yàq bari na te itam lii wut nit ngir nit dafa bari sëñ Tuubaa lim am ak li ko topp ak ñu baax ñooñu. defe naa ne topp leen woon bañ fi nekk sëñ Tuubaa ko ne xam na ne ba mu fi nekk amul woon mbooloo mu bari lu tax mu dem mbooloo topp ko kon yàlla rek la. kooku bu newoon ci ay caaxaan kon nag kii kon wutul woon mbooloo kenn kii wut mbooloo nag nga xam da koy rek moom waxoon na ca waxoon naa ko ba tàyyi na kay wut mbooloo ngir mbooloo waxoon na ne danañ tollu jamono joo xam ne da gis ko wut mbooloo ànd ak ñoom wuti sawara te bu ñu taxawul fa la ñu jëm dañu àgg te moo na mën la ñuy tuddoo looloo ci gën a garaaw nag waaw moo na ñuy tuddoo boobu moo tax nañuy tey kërëb kërëb jeeg wax ju bari jeeg karang karang ji loolu sotalu dara te foog naa ne lu bari moom dana ko lijjanti ndax am na loo xam ne sa ñoo xam ne sax gëmuñu àllaaxira la booy wax dañuy defee ne àllaaxira ay wax la rek ndax am na noo xam ne ku koy doxee mënoo gëm ne am na lu yàlla wax ne dana ñëw bis boo xam ne danga nga da nga doon doonte gëm nga dee sax mën ngaa gëm ne ku dee da ngay dee rek ndax am na loo xam ne mënoo gëm ne yàlla dana la la dekkal wax la wax ak yow leneen nga di ko gëm waaye lu mu ci mën di doon nañ leen defe naa ne moo tax dafa mel ne dafa changé léegi moom itam histoire jëm bari na loo xam ne du du ko xaar moo tax ku ciy defate looy naga nga seet la ngay def nga di ko wax xam jàpp naa ne lu ci def bëgg koo taafantaloo wala nga di ko wëree wala nga di ko yàqee dana la da nga yendu guddeem wala bëccëgam koo xam ne da nga ko rëcc te boo te boo fa jógee itam dootu leen gise mukk ci àdduna ndax mën mënul nekk ndax mënta réer yàlla nee na woon suñu borom wutum woonu ko ay jëm mais ay ay rôle la ko woon waaw lu bari bari loo wax wax sëñ Tuubaa nangam nangam d'accord bu ko neexee ndax jëmm li yàlla daf dara mënu ko mënu ko mënu umpalu mënu kiiwul dara tëliwul dara rôle yooyu muy wax ne moom la ko woon lam quota ba mu ko jox moo xam waaye bu ginnaaw dara du ca manqué ndax jëmm nit kooku lay indi wala da koy jox beneen jëmm kooku mu sàkkal ko pexe te du fa nekk naa ko kii la moo tax beneen pexe la ñu moo tax dafa mat di bàyyi xel nit ki na nekk ci lu baax xam ne sëñ Tuubaa dafa sonnoon ci yàlla lu ne mu daj ko ci teg nu ci yoon wa kon nan ca nekk bu nu bëggee ëllëg noppal ko bu nu bëggee noppal suñu bopp waaye du naxe ak loo xam ne ak loo xam ne wax bu dugg jëmul amul tàmbali amutub yemukaay te bëgg koo jël jooyal ko ci kaw loolu mënul sottal dara kon nanu dimbule suñu bopp li ngeen ci ci waxit lu bari mënul nag li nga wax sëñ Ibra dëkk la loolu mënul ñàkk seytaane moom mënul nekk mënul nekk mënul toog rek di nu seetaan ndax moo nu sonal ndax lanu jëlee àjjana doy na sëkk musiba kooku mën noo bàyyi kon fu nekk nekk lu baax te li ngeen ci am yombul sëñ Tuubaa da ko ñaan ba tàyyi te lépp lu mu leen lu mu wax rek suñu borom may na ko ko ba pare waaye su dul woon loolu ànd bi ak lii mu doon ñaan na népp dajalu ij al muridin ma an fi xesnakal xasin ñaanam yooyu bo ji al al ala tawadudi bi la tanaz maanaam façon euh, orientation yooyu muy def bu ko deful woon kon dara du ko jar ndax yombul waaw ndax yàlla waxoon tan ko yëntam la law anfaqta maa fil ardi jamii'an maa allafta bayna quluubihim kon loolu loolu boo du boo defoon léppit mënoo ko mënoo fexe ba jël xol yi dëppale leen kon li koy li koy jooyale mooy nga bañ a ànd ak ñoom ca la ngeen ah, jëm ku ci beru rek gis fa am problème foo gisee mbooloo mi am dem ba mujj mu am jaxasoo am na ku jàdd am na ku ca dugal lu ca bokkul waaye feeg lu ca bokk yaa ngi ko ca yem ànd rek ak ànd bokk fa ngeen jëm rek moo ci nekk ak jàmm kon yàlla nu yàlla dimbali ñu ànd ci loolu xale yi tamit góor leen ndax lii ñu ci gis ci karaar ni ngeen def na ngeen góorgóorlu góorgóor li woon xam leen ni nag ah, yéen a ngi ci coono ndax da ngeen topp ci ay mag topp leen ci mag ñi ndax eh, Mourtalla xam nga ci dara daayira étudiant bu njëkk jaxasoo woon na lool dem nañ ba mu déborder dem nañ ba mu déraper nga xam ni leneen la léegi kon bu leen dugg ci loolu matériel sëñ tubaab bi moom boo santoon ndaw ko naa sax boo taxawee fii ne nañ ma jox junni maa ngi sëñ Touba ngi nii may jàkkaarloo nit ñi jox la ndax donte buñ ko gëmul sax sëñ Touba la ñuy jox. loolu nag bu mu la jay ba nga bu mu leen bu mu defee bu mu tax mukk mu yomb ba nga defee na loola dara la. jàpp ne potit nit ki buy bu la day jox am raxasit potit moom day yàkkamti mu génn ci loxoom. bu ko defee nag yow mi koy dajale yor ci ay paan boo demul suul def def ko ca kàmb ga da ngay daal di am problème. boo defee ne danga ko war a taaj di ci naan da ngay am problème moo tax lu muy àlali murit yi yomb yomb yomb yomb nañ koy seet fu muy dugg fu muy jëm bu mu yomb ba tax nit ci jàpp ne mën na caa am lu koy jariñ bu ko jariñee fii si du ko jariñ ëllëg kon nañu gën a góorlu bu baax ànd leen fexe ba dimbali ko jël mag ñi ñi xale yi ngeen góor góorlu am ngeen sansu fekk ngeen ñu leen teete ba teg leen ci yoon te loolu yombut kon nag loolu boo ko amee da koy téye bu baax kon yoon wi ngeen jaar yéen moo xale yi na ngeen ci sax ngeen nekk ci lu ne ànd benn ndax seen waajur yi kat ñi ci bari dañoo liggéey te seen liggéey du sànku kon nag su leen yàlla dimbalee ngeen tege ci yoonu mën na leen yomb lool kon yàlla na ci yàlla teg te sàmm leen góorgóorlu leen nekk ci lu baax nekk ci jàmm yàlla xam liggéey jéem a jéem a ànd soxna yi tamit ñu leen di sant bu baax ci liggéey bi nga xam ne moom la ngeen ci dekk ndax wax nañ ko yéen a nekk ca waaja yéen a nekk ca liggéey ba ba noppi di jël seen doole di jël seen seen seen seen alal di jël seen ñaq loola lépp ngeen xam ne euh, sant ci yàlla ngeen ci war def ndax ñëw ba fii ci dëkk yii ngay jigéen boole ci nga xam ne jigéen ak xale li tax mu dañoo seytaane di leen gën a yab kon soo fi nekk yàlla dimbale la nga bëgg a nekk ci lu baax ànd ak ay kilifa looloo na ngeen ci say téye ko bu baax bu leen kenn mën a jaxase ñi ci am ay sëriñ nañ ko leen téye bu baax bu leen kenn mën a jaxase ak ñoom bu dara mën a dox seen diggante na ngeen ànd ci ngor lu mu metti metti metti na ngeen ci ànd ñoom itam ñuy ñu yërëm leen ku ci amut it na nga góorgóorlu yàlla may la yàlla na ko yàlla may da nga da nga am sa dignité am sa am sa am sa am sa am xam ne ay valeur la yoo xam ne kenn bu mu la dugal wala mu yàpp la ci ay loo xam ne lu amul solo la yàlla na leen yàlla sàmm kon ñu ngi am mbégte bu baax di ñaan yàlla ñu ñu fekke ko lu ñu xam ne ñun saa bu ñu fi ñëwee rek dañuy dañuy am mbégte mbégte mi mooy xam nañ ne bu fekkoon ne am na dara loo xam ne lu lañ ci rax yéen ñu koy njëkk a waaye saa bu ñu fi ñëwee lu ñu fi fekk dañu fekk lu ko ëpp te xam nañ ne ñun tamit amuñoo yenn benn lenn loo xam ne fas nañ ko ci yéene rax rax dafa bari dafa yomb loolu nag ndax nit ñi wër la rek wala ñu war maal rek nga daa defe ne yaay ci na wala nga defe ne yëf yi yow loolu dafa yomb yàlla na nu ci yàlla musal waaye kenn du lu ci dugal moom waaye kenn mënul lijjante lijjante ba soob noo soob soob wala nga dugg ci ba nga xam ne danañ jàpp ne lii du yëfi Sëñ Tuubaa ndax moo ko liggéey kenn dimbali ko ci woon kon ñi ngi gërëm ñëpp di leen sant di ñaan yàlla mu faj aajo yëpp lépp luy ay jafe-jafe mais ngeen téye seen bopp xam seen bopp xam ne am ngeen loo xam ne bu ngeen ko téyee lislaam fii mu toll yéen a ko war a jàggante ci turus ci ci ci sëñ Tuubaa ndax yéen a fiy jëm yéen a fiy mm-hmm. kon nag jumtuwaay nag ak ka ko defe naa ne moom mën naa bañ am problème ke nag bu amee jumtuwaay bu bu bu mu téyee téye ko kon ngeen di jumtuwaay kon jàppale ne lu ngeen war a mën a def rek ki ko yor mën na koo def kon yàlla leen yàlla dimbale kon sëñ bi ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant bu baax sëñ bi yow tam ñu ngi lay sant bu baax a baax ci teewaay bi jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Mbacke Balla yal na ko yàgg. waaw waaw waaw. nga àddoo si jigéen ñi amiin amiin amiin amiin آمين آمين بقى. آمين آمين آمين يا رب آمين بقى. آمين آمين يا رب آمين آمين آمين آمين